waaw mais sant yàlla rek xam nga àddina moom noonu la noonu la demee nous n'avons fait que partager xam nga opinion publique bi li ñuy wax parce que tamit bon loolu la yàlla dogal xam nga état continuité la xam nga Matar Ba newu fi woon newu fi woon dafa remplacer euh, Manick tey ëllëg euh, ki ko fi wuutu muy euh, Yankhoba Diattara daf fi jóge keneen ñëw mais bon peut-être boo gisee li Sénégalais yi di wax yëpp ñaata départ moom dix départ moom rek moo am polémique moom moom rek la gars yi di wax parce que euh, dafa dafa bett Sénégal yëpp mais nag bon ñi doon faral Sénégal bëgg sport Sénégal jëm ci kanam Sénégal a nga fi ba léegi mais ñi ñi nga xam ne day ay Matar moo leen ñoroon te Matar c'est un citoyen te Matar moom dañ ko tegoon président da ko wóolu woon teg ko fi rek pour pour faire avancer les choses la mu mën def na ko gàcce ngaalaama amul amul leen luñ koy reproché parce que nag am na lu bëri loo xam ne ci magistère am la la la ko yàlla la ko yàlla dogalee mooy tey Coupe d'Afrique mosuñu ko dañ koy dégg rek yàlla dogal ko ci moom wax dëgg yàlla porté nañu chance te gis nañ tey nu mu nu mu nu mu nu mu stabile nu mu stabiliser euh, le monde du sport parce que c'est pas facile ah yombul de il a que mun ne am temps bu bari pour mën ko parce que il a xam nga nànk-nànk yi ngay def année yi mu fi def moo ko permettre mu dem ba canaliser maîtriser yu bari ça c'est facile amul woon fa yoonu jombul woon ah même la lutte bi muy ñëw <laughs> bëre bi làmb ji dafa meloon nii xam nga mara day tàlli te noonu la yeneen discipline yi la meloon mais euh, ci ci ci mel ci ci ci ci ci ci xam-xamam ak ak ak ak ak ëmb ak ëmblam ak disponibilité am moo tax ba dafa dem ba benn instant maitriser le monde du sport te loolu yombul. non li ñu koy xaar mooy dañ ko dalal nañ ko dal euh, li tubaab arab naan ahlan wa sahlan marhaban bikum mooy ñëwal ak jàmm xam nga na dal ñëw ak jàmm te nag euh, on a l'obligation pour jàppale ko parce que bu réussir Sénégal moo réussir Yankhoba Diattara bu réussir Sénégal Sénégal moo réussir te loolu la loolu la ko ñëpp war a ñaanal parce que tamit ñu ngi dem ci benn jongante boo xam ne. Euh, mooy mooy coupe du monde moo ëpp importance euh, mooy mooy mooy mooy euh, événement bi gën a bi ñu gën a suivi dans le monde ci ci ci sport te loolu tey dafa dafa laaj cohésion dafa laaj entente dafa laaj jàppalante dafa laaj solidarité kon boog le le monde sport nañ ko jàppale tax taxu ko du nekk lu yomb nag ça sera pas facile parce que d'abord làmb sport dafa bëri ay ay xeetu nit yu doy waar yoo xam ne pour ñoom ñoo téye sport bi te c'est pas ça d'abord il faut que le gars il faut que mu pare. il faut mu am fit mun a affronter yenn charge yi parce que tamit gars yi day boo ragalee dañ lay saax saaxee soo nekkee fit yokk ko ki dañ lay saax saaxee il faut mu nekk nit ku am fit nit ku mën a maslaa mais kenn waxul maslaa ba ñu masaale la sénégalais booy maslaa maslaa yu bëri dañ lay masaale jar sa kaw mais il faut mu nekk quelqu'un ku rigoureux ku disponible chance su Matar Ba ak force am mooy disponibilité am Matar Ba boo ko doon woo téléphone fekk muy mu xam ne yow mu xam ni. yow intérêt waxoo ko sa intérêt bopp Matar man amoon nañ proche trop jege woon nañ lool mais mosuma koo woo téléphone di ko wax suma soxla bopp parce que yàlla suturaal na ma ba nag wax dëgg yàlla la may dundalee sama njaboot ak la may dundee ma yàlla may na ma kattan maa koy liggéeyal sama bopp lépp lu ma ko moo wës woo ci àddina c'est la lutte ñi nga xam dama nekk ci bopp làmb ji sama ay nawle jiital ma na ma yaa ñu doy pour faire avance les choses lépp lu ma jaaxle ci moom suñu ay papa nekk ci lalu hôpital yi tëdd suñu ay mag suñu ay nijaay yoo xam ne tey làmb lañ yaakaaroon tey affaire yi métti ci ñoom ci yooyu rek laa ko doon woo mosuma ko woo di ko sama soxla bopp parce que man sama mbiru bopp yàlla mi ngi may suturaal te mosuma ci tànqamlu daf mosuma ci épaulé parce que looloo loolu loolu nag chance boobu mu amoon ci ñun moo ñu ko moo ñu ko ji tey le nouveau ministre bi dañ koy ñaanal jàmm di ko ñaanal salaam parce que xam na ci lu bari ci sport ba pare am na ñu ne ci ginnaawam ñu xarañ ñu xarañ ay un gars comme Yamar Samba am na ay nit ay kàngam yu nekk ci wetam yoo xam ne xam nañ sport te nañ ko épauler nañ ko jàppale ñun mbër yi nous sommes obligés jàppale ko taxawu ko parce que bu bu réussir Sénégal yëpp la réussiral kon bokk euh, ensemble nous vaincrons incha allah jaajëf